public euh, teg ànd ci ak premier ministre am euh, ñi nga xam ne nii tànn nañ leen euh, ñu ci bëri en tout cas ci sénégalais yi am satisfaction ci profil yi nga xam ne ñoom la ñu tànn ci domaine bu nekk ñu jàpp ne am nañu ci xam-xam et aussi récemment par rapport ak poste de DG yaa ngi doon wax léegi ci ku mel ni Pape Alé Niang mais tabb nañu ñu bëri waaye tabam mu mel ni dafa indi benn polémique ci ñenn ñoo xam ne dañoo taxaw di wane seen ñàkk ànd ci tabb gi ñu tabb ku mel ni Pape Alé Niang à la RTS mais généralement Euh, di nga ci ñëw mais balaa ñoo ñëw ci loolu Pape ña Niang comme directeur de la RTS ban analyse nga ci mën a def ndax jàpp nga ne loolu lu war a mën nekk la. Euh, xam nga lu tax maa ci wax Pape Alé dama ko xam d'abord. oui waaw Pa yow laa gën a xam ko yow sax yow ñu ngi doon gisee. tey te mel na ni li ñu waxtaanee gis nañu mel nañu toog nañu ay fukki wala juróomi at. Uh-huh. Pape dama ko xam. ma doon jox kook moom ñuy gisee nii di waxtaan taxaw nii. di wax WhatsApp wala téléphone. Pape Alé téléphone am yi mu jël pour décorer sax man sañ ma ko. Uh-huh. Pape Alé du tànqam lu téléphone boo ko doon rey ci téléphone nga koy rey. depuis revue de presse am ci Sud FM boobu gisaguma ko ni dama ko daan dégg buy def revue de presse ñëpp na tekk ngir Pape Alé. parce que osé bi ak di teg yëf yi. 2STV laa njëkk di gis ak moom nii ca El Hadj Ndiaye boobu maa ngi dem parfois invitation ci télé bi léeg-léeg ñu day nii waxtaan nuyoo miinante wu ñu woon. ñu jóge fa ndeketee fulla ma ko tàqaleeg El Hadj Ndiaye. fullaam ak fayda moo ko tàqaleeg El Hadj gis ngeen vidéo bi mu génnee. Uh-huh. fa gis naa mu dem ci Dakar matin boobu def fa di fulla ba fay emploi ay nit. ba pare Pape Alé jour daf ma ne Oustaz da ngay wuti site YouTube. mu ñëw dama ko conseillé dama liggéey site YouTube parce que yow li ngay def nii dina jëriñ nit ñi. Uh-huh. ba ni may gisee ak Maxu mu jëm ubbil mais comme amu jot bi yëf tëjaat. Uh-huh. ci laa commencé sax di dem ci Maxu Mandela ni ñuy waxtaan. Uh-huh. ba bu ñëwee seen TV moom Pape Alé fekk ma fa. ñu liggéey quelque mois mu ne ma gars yi dañu may fontu quoi gëdd bi ñu ko waroon jox. Uh-huh. joxuñu ko mu bàyyi leen fa seen émission. parce que boppam la gëm gëmu ko gëmu ku siis wala ku égoïste mais dafa gëm ne mooy réaliser boppam yëfam. Pape Alé ku ko mas a dégg ci yëfu jàmbur. Uh-huh. kan moo ko mas a yàpp maa ngi wax keroog ci benn émission deretu jolof jolof bi moo koy yëngalee na saay uh-huh. dafa laal jolof te jolof jolof kenn du ko yàpp paa nag pour wane ne parce que loolu mandarga bu baax la woon démb quoi naan waalo waalo dafa naqari deret euh, ka casacé maanaam joolaa dafa am fulla ka fële euh, ka saalum ñu naan dafa bañ ko ko yàpp saalum saalum et cetera jolof jolof am na maanaam loolu moo ne ci Pape Alé deretam boobu dafa uh-huh. ne ci moom ca cosaan te muy dëgg tamit nag uh-huh. parce que ku nekk nag dafa am luy naan xanaa deretu gor dawul sa yaram c'est pas pour tiitaru soo ne joolaa am na lu leen mandargal uh-huh. boo ne séeréer am na lu ñu leen mandargal loolu yàllaa ko dogal uh-huh. su ko defee valeur yooyu moo ne ci Pape ale léegi nag pour pourquoi coow li ci wetam premièrement dafa am mbokk journaliste am ñu ko iñaane way naa ko wax ca uh-huh. kaw ñu ko iñaane parce que nit ki wala bi ñu ko tëjee ñu commencé seen sortie lu ne ñu wax ko. ci ku nekk ci ci ci guddi yu xaw a doy waar. grève de la faim bañ naan dina ñàkk bakkanam am du ko ñàkk. voilà ba pare am ñoo xam ne Pape dimbali na leen ci organes yi lu bëri bari pour ñu am ci accès wala mu jàppale leen ci feneen ñooy toog di wax lu leen neex ci moom. kooku nag yàllaa ko baaxal. xolam a tax mu am lii moo gën ñëpp laa la Pape wax naa keroog moo ma gën man xolu Pape Ali li ci nekk dama ko koy wax ma ne ko grand sa xol la sauvé. dama ma ne ko sa xol moo la sauvé yow. fi nga jaar ak nguur yow dañu la waroon éliminer sa xol la sauvé kooku jëmm ji kon xam naa ko xam naa ko man bi ñu ko tëjee wut naa permis avant ñu may jàpp de uh-huh. yàgg na ma uh-huh. dem Sébikotane ñëw bi ci porte bi fekk benn chef ma ne ko damay seet si euh, kii nga xam ne mooy Pape Alé uh-huh. mu ne ma dañ ko toxal toxal nañ ko boobu dañ ko yóbbu principal wala rëbës ko ndax affaire grève bi léegi nag ma bi benn jour dama photo permis bi mayoon na ko par WhatsApp ma ne grand xoolal maa doon seet si la ne ma non booba génn sax. ma ne ma non garaaw ñoo far jot amul. mam bi ñu ma tëjee moom ma bëggoon seet si. di programmer mais xamoon naa ñoom arrangé wul gars yi à 100 pour wala souhaité ko woon. Mhm. parce que gis nga gars bu ñu la xasee soupçonné du ñu bëgg nga jege ñeneen yi. man bi ñu may enquête am na personage personnage bu ñu ma laaj boo xam ne xam naa ko man leen xaw ma ko. Mhm. pourquoi question bi gis nga Sonko ni nga koy gis nii. Mhm. Imaam Ndaw yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. bokkoon na ci li mu gënoon di moytu Sonko di ko seet si. ma wax ko tey jii ñu bëri xamuñ ni mu demee parce que góor gi génn na àdduna am ñu génn ci sit euh, site yi naan Sonko en tant que paa bi ni mu meloon ak moom lu tax demu fa. waa kër ga ñoo bëggul woon Sonko agsi sax ci moment bi paa bi gaañoo ndax nit ñi ni ñu bëree woon. Mhm. benn parce que jot naa doomu Imaam Ndaw moom ci waxtaan. dem na fa beneen ba ci wax ne bi góor gi di liggéey dem na fa après sax. Mhm. bi góor gi di dund moo bëgguloon Sonko di fi ñëw parce que gars yi li ñu koy jiñ di ko jiñ Sonko. dañ leen doon suivre bu ñu ko doon gis rek. ñu commencé voilà ñaari terroriste lañu. Uh-huh. góor gi xamoon li muy dundee yàlla ko yàlla yërëm. Uh-huh. kon yooyu moo fi nekk kon bu mel noonu nit ki Pape Alé noonu la amee principe bi bu dee kaso mu génn fa ma ñëw fekk garde yi di ma waxtaan ak Pape nan la fi nekkee woon. te dégguma fa lu ñaaw su ko defee nag yooyu nañ ko tegee na mooy nit ñi. dafa mel ni seen xol dafa tàng ba seddagul. ndax dafa am ñoo xam ne victoire bi du leen mës a neex. ñi koy xeex nag bu yeboo ñu tëdd noppi te noppalu dama ci cité rek nga baal ma benn booy bu mu faral di dégg man booy ñoo nekk ci 72 heures yooyu lu tax ma koy indi fii dinaa ko dina ma dégg feneen. Uh-huh. parce que dama ko dégg mu ne Sébi xutaan la dëkk. ba lim ay famille Sébi xutaan. Uh-huh. di wax ne Sébi amul góor jigéen parce que famille diwa nga fa famille diwa. famille yooyu jàpp naa ne moom booy bi bu may déglu boo ñubbee ci kër yooyu demal ña ca mag. Uh-huh. nga leen doomu Birane setu Birane Ciss moo doon wax ak man. Uh-huh. na leen laaj setu Birane Ciss. Uh-huh. bu tudd oustaz Assane Seck du wane sama bopp dama ko bëgg a xamal ne famille yooyu mu doon ndamoo naan góor jigéen du am seen dëkk. naa ko xamal ne moom rek a mel noonu mbokk ci biir dëkk boobu moom tamit. ni mu comporté woon nii moom rek ko mel Sébikotane. te famille yooyu mérité wuñu ku mel ni moom. ñoom Baye Motar si ak famille Ndour ak famille Ndoom ak ñoom ñëpp seen histoire duma ci jaar mais na laaj ki doon wax ak moom fii ci plateau bi surtout Birane Ciss la na ko laaj. Mhm. mu xam lu tax ma am droit pour wax ak moom te mu toog noppalu li mu bëgg du ko am te day gaañu. xama lan la garder ci xolam mais yoon wi mu jël baaxul. Mhm. tey famille yooyu muy wax. bu demoon ba bu toog fa naan leen góor jigéen yaa nga kër góor gi site kër góor gi. Uh-huh. mu naan noo si amul dancing naa ko laaj ndax kër góor cité kër góor gi am na dancing si si amul góor jigéen naa ko laaj ndax cité kër góor gi dafa am góor jigéen. maa ngi koy dégg mu naan pare na sax pour dee ma ne ko sëñ bi bul nangu dee ci lii boo deewee boo demee ci yàlla mu ne la lu tax nga naan sonkoo góor jigéen la noo koy layale mu ngi pour moom xeex bi jaral na ko dee quoi. Uh-huh. ma ne ko sax kenn du la dul rey. kenn du la laal kenn du la tëj kenn du la rey. conscient wal nga nekk nit loolaa lay conseiller si bu kutaan uh-huh. googu nga bokk bëgguñu tooñ uh-huh. famille yooyu nga doon wax ne ca nga bokk di wax waxu lébu waxu séeréer et puis ña ngay ak ña ngay waxal sax amuñu problème ma ne la maa ko gën a doon lébu gën ko doon séeréer te tooñu ma kenn ñaareel ba mooy bu xalaatoon démb cousinage bi nekk ci joola ak du laal Sonko xëy na moom lébu la uh-huh. maa ko gën a doon lébu gënuma doon lébu gënuma doon séeréer démb séeréer soo suñuy wax yaayu Sonko séeréer la ba pare na fàttaliku démb fa maamu Sonko jóge di rawaan dégg naa mu ne sunnit la sunnit xamul baatu su nit baatu su nit du français arabe la nii mhm. mooy kuy roy li yonent bi doon wax ku roy yonent bi doon wax di nga dem bàyyi sa kanam benn jigéen mu lay defal xama ay pédicure ak manicure ak xama lan ci studio ba pare nga naan waaye dafa doon dàmpalu ji te sa image nekk fi ñu lay daggal say weeg di defaraat sa kanam nga ne sunnit la sunnit mooy li kuy roy yonent ba kuy yonent bi doo tuumaal nit yonent bi da doon bañ ku tuumaal ku tuumaal yi dañ la war a caw boo jotee ay booy tontul booy yi. mais pour moom day naqaral booy di tooñaat du ma ko ko conseillé te bu demee famille yi mu wax duñu ko bàyyi ci li muy wax. maa ngi koy conseillé nag ki ngay waxal itam bu la toppoon ci logique ba nga nekk. itam non non kenn waxatu ko te kenn du ko laal xam nga lu tax. <laughs> fii ne nii gars talu ñu jàppee talu ñu topp kenn dañuy liggéey réew mi na fa nekk nag di bëre ba daanu amul sens li muy def. yow yaa génn sa génn photo ay ñoo xam ne ñii dañ yor drapeau góor jigéen yaa ko dugal sa sit yaa ko wax uh-huh. yaay toog di ko layalaat ñun suñu yoon nekku ci mais boo joteek ay nit yow Pape Alé lan la ko def lan la ko def dañoo nommé waa ji mais ànduma ci nomination bi loo dugg ci biir privé waa ji uh-huh. loolu la su nit di def voilà yont bi nee na ku nekk na la sa problème doy tuubaa li man saxalahu ay waxno yu bi naas xadis la mu ne yàlla na texe ñu ne ko kan koo xam ne problème am doy na ko. man ma am problème yu toll ni màggalu tubaa wala gaamu Tiwaawan réglé wu ma ko may dem ci domaine jàmbur parce que man sama xalaat laay joxe quelle démocratie démocratie day dofloo nit liberté baaxul. Uh-huh. tooñ baaxul. Sonko kenn gënu ko Sénégal waa ji bu bonoon nga yaakaar ne nguur gi du ko toroxal baax ma tax ak setam moo tax nguur mënu dara ci moom. Uh-huh. boo ñàkkee li ngay wax nag ay parce que naqaral booy tax nga naan. góor jigéen yaa ngi cité kër góor gi cité kër góor gi amul dancing amul góor jigéen Sébikotane nee nga amul dancing amul góor jigéen noonu ngay jàppee ne cité góor gi amul dancing amul góor jigéen pourquoi nga koy bañal sébi di ko nangul cité kër góor gi. yenn yi gàtt xel la te dina ma déggaat feneen ne woon naa duma ci wax parce que dafa wax waxu Sébikotane tudd ñoo xam ne ñii ca lañ leen xamoon ca jiite jàkka la wala nodd ca jamono maam ba léegi seen famille ñoo ko yor ñoo muy wax famille Ndour ak famille Ndoom ñépp beesee ba mu wax mankaañ sax na laaj mankaañ ya lan moo leen andi sëbi na laaj mankaañ yi lu leen andi sëbi ba ñu toog fa am fa quartier ba jur fa ay doom am fa équipe bu football uh-huh. booy tiitaroo dara day fekk nga mérité loolu Sébikotane mérité wul ku mel ni booy boobu na xam ne sëbi laa dëkk te li muy contre man la man mel ni man lay contre projet Sénégal nit ñi di doxal nga toog fa di nekk ci yëfu xale yi di def laa dama ko bëggoon yóbbante loolu traverse seen kii bi. Ah. te nag nekkuma fi pour di def. bu ma toogal nag moom ne ko booy yoon wi nga jël baaxul. toogal du lii. Ah. soo bëggee siiw neneen nga koy wutee demal liggéeyi. nguur gi ku ko contre rek yàlla wan la ko. parce que dafa am bakken yu dee ngir moom. Ah. am ñuy dàq seen liggéey. ñi ñu foowu ñëw. réew mi fu mu jóge ci ay problème nekkuñu di xool yërëm nit ñi nekkaat di soulignaat ay problème acca c'est la démocratie d'accord de toute façon kenn du tere kenn wax uh-huh. mais ku ciy wax xamal lan ngay wax mais nag kenn du fi tëj kenn uh-huh. kenn du fi rey kenn kenn du la laal yow yaay wax ba daaneel sa bopp yow. d'accord loolu ma dañ ko ko ko. en tout cas on on euh, mm-hmm. à de meilleurs sentiments loolu ñu ngi woon ci Pape Alé ak ak mbir mi. mais ñu ñëw ci beneen laaj bi. nee a uh-huh. ni en tant que Pape Alé yaa nga en tant ku jiite. RTS. Pape Alé xam nga nit man la. Mhm. défi rek lay bañ Pape Alé. défi échec maanaam Pape Alé day échec yi boo ko ko waxee rek dafa mel ni gaynde goo jat boo boo bëgg a jat uh-huh. Pape Alé défi la mën a affronter mais loolu wane nga ko xool Pape Alé fu mu jaar ci organe de presse yi rek. Uh-huh. fu mu dem bàyyi fa trace dem. fu mu toog émission adduna ñëpp koy seetaan. xam lépp xam nguur Pape toog naa. Sen TV. boo a booy APR yi ñoo fa di def émission comme d'habitude xam naa leen. bu ñu mhm. toogee studio dañuy coow défendre Macky fii yuuxu bu ñu génnee li ñuy wax ci biti du bokk xam nga booy bi lan la def. Mhm. day défendre Macky ba mu neex ko génn ci biti naan non Macky Sall dafa def erreur quoi waxul woon bàyyi Pape Ali muy quitté parce que Macky Sall li mu fay Macky li mu fay Pape Ali la neexul waa ji te moom mu ngi APR. parce que xam na. doole Pape Alé pour mhm. moom Macky da ko waroon récupérer ngir li ko booy bi jàppale. Mhm. kon bu nekkoon Pape Alé mu lekk ci milliardu Macky Sall. mais principe a tax xeexal na Wade ba mu daaneel Diouf. mu xeexal Macky ba mu daaneel Wade. léegi Macky Sall fay ko lii mu am fu la toogaat këram di xaar. kon kooku la ñu war a jox RTS. et privilège bi ñenn ñi di am ak yañ doon dund ak yañ daan am ci ay xaalis ak i kër ak yeneen ak yeneen bu nangu def la ñooñ di def mu am xëy na lu ko raw. jeex na de Pape Ali ban Pape Ali su ko neexoon laa wax Pape Ali su ko neexoon day toog day toog di lekk milliard. di doxal oto bu ko neex. parce que Pape Ali xanaa xam waa APR dañu ko ragal. gis nga bu dóoree benn dossier dañ koy saraxu. dañ koy woo di ko temporiser parce que Pape li mu waroon wax waxu ko. li mu yor nëbb ko moo gën a ëpp li mu génnee parce que dafa Pape yi du du ku bavard du tëppéeral di wax. day xool moment yi may génnee lii dóor ko toog jàppar njàmburam xam nañ ko bu baax a baax a baax boo gisoon ñu bëgg ko denc pour mu noppi. <laughs> mais xam nañ dafa yor bagage. te ci kanam da ngeen xool bagage am yi feeñul dana feeñi. moo tax RTS boobu yor ko mooy la RTS mooy lan. RTS man mi man naa yor RTS. xam mhm. est xam nga nekkoon naa RTS. maa daan def xayma xam-xam. Mhm. génie en herbe bi. RTS dama fa ñëw gis ne problème yu RTS dafay yàgg am problème. Mhm. moo xam DG boo fa nekk nag conflit yi fii armée mexicaine la. RTS armée mexicaine ku nekk ak sa chef. mais yooyu yaa ngi fa dégg du la bett quand yi cay dëgg yi ci dëgg na xamul ay jaay nañu oto yaag DG ba dafa dàq ñeeg am na moom leer na. mais am na yoo xam ne Pape Alé bu ñëwee da koy réglé sim laay saala parce amu ci fula moo tax ma ko doon dénk keroog ne ko grand boo demee sa xol daa baax lool mais sentiment doo ko am de ci début bi. non non waxuma la nga duuraate gàjj de mais tegal lépp ci yoon. Uh-huh. nga doog a mën a liggéey. d'accord te bul nangu ñuy ñëw sa bureau nag njëkk laa artu naan diw moytul ma ko waaye diw moo fi defoon lii nett yooyu effacé rek. d'accord del moytu rek boo ñëwee ci kër ñu lay nettali nel tekk rek. Mhm. kon loolu Pape Alé mérité na ko ci xam-xam. Mhm. mérité ko ci jaar-jaar mérité ko ci bëgg-bëggu sénégalais yi. Mhm. demande internationale la. man mii sax xanaa gaa yi ma naan dellu RTS. te duma fa dara. man mii gaa ngi coow delloo boobu laa doon wax tey ci ci euh, choix bi ni mu demee ma ni euh, dama jàpp ne choix bi li si li si am solo mooy boo ne woon yi voté leen sax amaana moom lañ fay teg. déggoo li ma la ñoo ko doon demandé. Pape Alé RTS Pape Alé parce que ne moom du par parloo. te bu ñëwee la gars yi doon jox RTS équilibre boobu dana ko fa teg parce que Pape Alé boo xoolee studio am wala boog fu mu mës a toog def émission xoolal ni mu invité. waay xool ni mu invité gars yi du am distinction ñëpp lay andi. teg. Mhm. la Pape da ngay wax rek mu lay déglu. te kenn du ko conditionné nag. Uh-huh. xulool ma fii wala waxal ma kii lii non non non non am na ci fulla parce que yàlla dimbali na ko. Pape Alé doo dégg corrompre nañu ko. comme yeneen journaliste yi am naa xarit journaliste yoo xam ne kenn mu leen corrompre am ñoo nag seen bikk la ñuy dundee. mënoo ci uh-huh. dara ñooñu nag Pape Alé du leen arrangé kon nañ ko seetaan xool daa ngi ñaan sénégalais yi. Uh-huh. buy Pape di Sonko di Diomaye ak yeneen ministres yi. ñun ñooy jàpp sax ci liy tax ñu réussir. d'accord parce que tamit kenn di gas. ñetti di suul pënd baay bëri. waaye ja waxoon na ko. Uh-huh. bu ñu bëggee iñaane nag ñu mën naa leen wax ne du dem. mais bu suñu xool setee mu dem. d'accord boo dee bu bëgg liggéey waa ji mu jóge palaasam. Uh-huh. wala lu mu def nga saboté ko pour ñu ne moo ko def. Uh-huh. mais du dox mais loxo yooyu dañ leen di seppi nag. Sénégal danañuy sérieux. jub jubal jubanti. jomaay commencé na ko yaa ngi dem. yaa dem na mbuur keroog. <laughs> voilà si la si laa doon jëm sax. baax na kon yëgu ma ko jàngatee euh, visite bi président def démb laataa loolu euh, dogal gi mu jël ngir ñu arrêté lépp loo xam ne ni chantier la moo xam ci euh, littoral bi moo xam ci yenn zone ci biir réew mi nga xam ne nemmeekoon nañ fa ay jaxasoo yoo xam ne amoon na fa ci wàllu suuf décision boobee président jël ak dem gi mu dem démb fële ca mbuur 4. mu nekk loo xamante ne nii en tout cas sénégalais yu bëri ñu ko doon joytu ci ñu lijjanti ko président arrêté na li nga xam ne moom moo di travaux yi démb itam dem taxaw euh, jël taawam waxtaan ak gars yi laaj leen terrain yi ni mu demee ak ak discours ba nga xam ne ni def na ko ba mu fa jógee